sunugal 24 point net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal 24 point gàmm ziar. waaw maa lay delloo ziar bu wér. tey loo ñu mën a wax si combat bi naka nga bëgg. combat bi waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yoon bi damay sant waa Tëngéej gépp ah ñi nga xamante ne dañ may jàppale te xaw ma ña. ah combat bi entraîné nañ si li ñu war a entraîné ànd ak sumay grand ak sumay rak waaw ñoom soog a sim ñoom ñëpp ay diis ay Youssou Ndour ay Awaxa ay Idi maanaam mënuma lim ay Maama ñoom ñëpp ay doomu dàngu ñëpp ñëw taxaw ma. ay Ronaldo Modou Diakhaté di ma jàppale moo tax combat bi nii rek la mënoon a demee. bi ngay ñëw lan lañ la wax xeex la digaloo. non dañ ñoom dañ ne ma li nga entraîné boo demee làmb ja nga bëree ko man loolu la li ma bëree nii moom la entraîné waaw. tey qualifié bi nga daal lan la la apporté. qualifié waaw damay yóbbu si dama am fu may yóbbu. qualifié man daan nga dama am fu may yóbbu bu fekkoon bu ma ko jëlee bu ma ko daan ma yóbbu fan du ma ko jël xam nga rek. li ma ana balance daaw moo tam ma bëree qualifié. Ah, waaw mais foog nga ana balance ma. qualifié du ma bëree moom waaw. Ah. loo koy wax. wax mu gën a góorgóorlu rek mu gëm boppam mu góorgóorlu gëm boppam bu gëmee boppam mën naa am si làmb ji dara waaw lool laa koy conseillé. instant sa bopp. instant bi ku ma làmb boole rek ma bëre moom incha allah ah. xaw ma turam xaw ma fu mu dëkk man dama nekk koo xam ne bu man nit lebalee dara dama ko koy fay lebalu ma xaalis lebalu ma dara gis nga fii nii képp ku dëkk tëngéej ma yàlla non xam naa tur xam naa laa wax maanaam amuñu connaissance su ma yàlla boole woon ak moom damay bëreeg moom waaye daa am lu ma ji dafa fekk may signature combat Modou Lo Lac de Guiers mu taxaw am lu mu wax si man ñu toog waxtaanee ko maak moom ak ma suu sama ndey barki Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni ni mooma fi indi woon barki maam Cheikh Ibrahima Fall samay soxna la ànd rek samay rak fu ma yàlla boole woon ak làmb ak moom ak kenn ku dëkk tënkee damay bëre waaye dafa baax te li ma waxoon moom dafa nekk sama rak ba pare yedd ma doo ko xamante ne ma mbër ma ne ah, morom góorgóorlu waaye yàlla na ko yàlla defal jàmm Sunugal 24 point net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa point net